xam ne mooy boobule investiture loole moo tax gouverneur daal di koy tere waaye nibit gouverneur daal na sa yokk ne Ousmane Sonko mi nga xam ne mooy njiitul Pastef dañoo gisoon ne dafi doon wote lu jëm ci wàllum violence te dañuy bañ a dikk bi ba joxoo loolee moo tax ñu daal di koy tere fala gouverneur daal di sukkandikoo yéen kaay na en tout cas li ambade sall tere nañu investiture bi nga xam ne waa Pastef ñoom suba bëggoon nañu ko amal ca stade Amadou Barry samp seen mbër mii

suba danañu ko amal par force Ousmane Sonko tey jii dina yëkkati ay kàddu Ousmane Sonko njiitul woote woon gatsa gatsa gouverneur moom tim gatsa gatsa la woote ndax gouverneur bi nee na Ousmane mi nga xam ne moo fi doon woote ay violence loolee bokk na ci li ñu daal tere manifestation bi nga xam ne waa Pastef bëgg nañu ko amal yéen kaay gi de la mandat nee na suba ci samedi ji fukki fan juróoma ci weeru juillet la waa Pastef bëgg a investir Ousmane waaye nag ni suba ñaari xew-xew yoo xam ne waa Pastef moom la ñu bëgg a xew maanaam muy anniversaire Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko 15 juillet mooy anniversaire am ñu bëgg koo samp 15 juillet waaye nag ñaari xew-xew yooyu yëpp dañu ko waral mooy banlieue boo muy tuulee ay jàppante yu métte métti dina daal di am ci banlieue bu ndakaaro yéene kaay gi de Le Quotidien nee na gouverneur bi daat nay tëj ndakaaro yéene kaay gi nee na ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef ñoom nag nee nañu daal xam ne bëgg nañu ko amal seen candidat par la force dinañu ko amal yéene kaay gi di enquête xëy xibaar naan ñu lu jëm ci candidature yi bokk yaakaar bi nga xam ne jamono ji ñu bari ñoo ngi xaara ba léegi ay xiini a litt waa Benno wala mu daal nekk seen mbëree ci élection présidentielle kay gi di évidence ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy déclaré ne candidat lañ ci élection mbir maa ngi mel ni tulleeg ma leen ndax maam góor jasaaka maam góor jasaaka nee na la maam góor jasaaka nee ngeen jox ko réew mi yi kay gi di Les ñu xëy fekk fa Mansour Faye moom nag nee na dina ñu rëccu Macky bu baax baax Mansour Faye mooy wax gorob Macky bi nee na yor ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekkee moom nag ma ngi jéggulu Alassane Dramane Ouattara ci kàddu yi nga xam ne Birame Souleye Diop daan ko yëkkati moom Mamadou Lamine Diallo nee na Birame Souleye Diop place am du kaso yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Aminata Assome Diatta moom daan nay génn benn bokk yaakaar yéen kaay gi de la point xëy duñu xibaar naan ñu Aminata Assome Diatta mi nga xam ne nee na la loolee nag dafa journal bi nee na amul personnalité bi amul moyens yi amul argument bi même parrainage mën na ko bañ a am li su doy waar ci mbir mi ñoo koy tuumaal lu jëm ci wàllum connexion ak waa MFDC yéen kaay gi de la point moo xëy di ko xibaar journal bi di réew mi quotidien nee na lu jëm ci wàllum lab gi jamono ji mbir maa ngi mel tuleeg male ci place yi nga xam ne ñoo nekk ci ndakaaru ci banlieue bi yéen kaay gi di libération nee na Barça wala ne moom la ñu génn am na genn ne dafa tëmboon ci na juróom benn yoo xam ne gisoon nañu ko am na yeneen ñaar yoo xam ne gis nañu ko waaye am na lu toll ci juróom fukk ak juróom yenn yoo xam ne ba léegi ko ba ci biir yéen kaay gi di réew mi quotidien Antoine Diome ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi moom nag ma ngi woon ci diwaanu Saint-Louis daal wax ne xale yi nga xam ne ñuy jël gaal di dem du ñàkk liggéey rek moo tax ñuy dem maanaam du ak tumuranke mooy tax ñu jël gaal gi kàddu yi la ba ci biir journal bi moom Antoine Diome nee na trois cent yi nga xam ne moom la ñuy wax ne dafa réer ci géej gi loolee nag amul journal bi da la Soleil Antoine benn ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi dund nekk